Mamadou Wane maa ngi lay nuyu. maa ngi delloo maa nuyu bi di nuyu aussi sa auditeurs yi. voilà Mamadou wan nga nekk sociologue expert en analyse politique et sociale déjà yow naka nga analyser naka nga gisee arrestation bu Bougane Gueye Dany nekk leader au mouvement gëm sa bopp. non du ma gis nekk euh, arrestation pour man c'est normal c'est normal c'est-à-dire il faut aussi que ñi nekk champ politique euh, yaakaar ne. que ñoom ay citoyens extraordinaires la ñu lu leen neex def suñ leen jàppee da fekk dañ violer la loi ñu commencé donc way c'est politique dañ ma bëgg voilà non non non man ëpp ma droit <laughs> ëpp la yow droit ëpp ñi na xam ne kii nee nañ la fii ñoom ñooy koy dogal nan la ñuy defee dispositif de sécurité le président de la république di dem di di di di sur le terrain dans un contexte de crise humanitaire foofu nga xam ne affaire inondation yi ko indi et en même temps d' autres problèmes dans si nga xam ne affaire euh, karange dafa posé wu ñoom ñu déterminer ko <laughs> parce que c' est qui a le monopole euh, <laughs> de la sécurité fii la Sénégal su ñu demee ba Sénégal yàlla aar nu ci li nga xam ne lu sow ci yenn dëkk yi xew bi c'est parce que quand même c'est une de sécurité la xaaral ba ñu kii ci ci lu ma ci lu ma jàpp lool ah ba dem nga ne noono yow da ngay sur sa yoon dégg nga da ngay violer ah da ngay violer bi forcé dem non yooyu yooyu di kilifa affaire affaire xale yooyu de ko war a bàyyi politique valeur politique da nga koy def ci li nga xam ne maanaam bu gën rafet affaire di xali-xali lu ubbee naa dem ñu wala ma jàppee bës bi yooyu yooyu du benn bës day tax ni ni gën a jëppi voilà man de toutes waru façons waruloon def loolu mënoon na ci teggin su dee day dem foofu di jàppale nit ni jël beneen bis ou bien xam ne kii matin lañ ñëw moom mu dem isa mais mu dem foofu ah mais mais Mao est-ce que politiquement Bougane Gueye Dany mënu si gagné lu bare bare. parce que ñu bëri dañu dañu jàpp ni lii dafay nasaxal démocratie bi euh, Ousmane Sonko la mu doon xeex avec le président Sall tey jii moom la ñuy teg si ndoddu euh, Bougane Gueye Dany est-ce que du ko yokk politiquement en fait. xam nga soo ko géré wul sa démocratie du jariñ dara. <laughs> dëkk yi nga xam ne amul sécurité amul benn kii dégg amul benn euh, naan su démocratie bi jariñu fa dara <laughs> man nekk naa dans des yi nga xam ne dëkk yi nga xam ne dafa am conflit armé <laughs> dégg nga démocratie jariñul dara <laughs> su dee par exemple amuloo sécurité mais état aussi ordre la d' accord man d' accord par exemple ñu teg nit ñi li nga xam ne du yoon mais yow suñu ne la bul fi aw xaaral tuuti nga ne yow doo xaar di wane sa yoon nekkul ci dara yooyu dafa baaxul leader politique yi nañ xam ne citoyen lañ comme tout le monde ba d'accord ma ci mais ba nañ bàyyi ñëpp nañu bi kaso yi ñu jàpp ñu lépp na ñëpp taxaw si alkaat su ne bu leen te taxaw leen ñu ne man du ma taxaw mu jàll ba pare ñu wax ne démocrate le amul dara lu am ci démocratie xam nga ci loolu lañ leen di naxee <laughs> ñoom yaakaar ne du démocratie Euh, euh, tey jii euh, Mamadou Wane noo gisee sorti bu Amadou Ba nekk leaderu coalition jàmm ak njëriñ xam nga temps yee si gannaaw sas na parti politique politique am tuddee ko nouvelle responsabilité en tout cas Amadou la muy wax bëriwul démb nag finalement génne na assumé na sa casquette d'homme politique face à ce nouveau régime naka nga gisee sorti bu Amadou Ba. non mais man man man de toutes les façons man su dee ci euh, euh, cadre démocratique cadre échange maa ngi rafetlu sortiem parce que aussi pays il faut mu mais nga xam ne day jàkkaarloo ñu yore euh, nguur gi ñu débattre programme ak programme ñu débattre ci loolu mooy faire avancer la démocratie donc man maa ci maa ngi ci ci ci ci lu mu génn lii bon maa ngi rafetlu daal lu mu génn ba ngi xam parce que élection lañ jëm. Mhm. il ñu xam ku nekk ah lan lan lan nga boot <laughs> lan nga boot. Mhm. problème bi mooy si nga mu ngi toll ci benn situation ba nga xam ne mun naa ne jàpp musul am ci Sénégal. Sénégal dynamique politique bu ñu jógee élection présidentielle moo koy mandargal pour la première fois dans l'histoire en tout cas ci en Afrique même en Europe ah ki jógee opposition gagné dès le premier tour avec cinquante quatre pour cent <laughs> cinquante quatre xam nga ba léegi vingt quatre mars lu xew même acteurs politiques yi analyser wuñ ko <laughs> te nuñ la électeurs yi ñoo yore souveraineté bi bon léegi ñuy dem élection législative yi parti yi ku nekk aussi war nga euh, commencer ah, di liggéey ci sa programme de législature di adressé wu ci population bi moom ay débat contradictoire ma man lool laa gëm loolu mooy avancé ci démocratie d' accord euh, tey jii nga gis euh, juste après sorti bu Amadou Ba euh, premier ministre Ousmane Sonko wala sax euh, njiitu Pastef euh, muy invité ci benn débat public Amadou Ba maanaam ñu toog waxtaan parce que xam nga ni coow li bari na ci fortune Amadou Ba coow li bari na ci falsification chiffres yi comme PM ni mu ko daal di waxee en tout cas mi ngi koy invité ci benn débat yow débat boobu da nga koy valider ban njëriñ la mën a apporter askan wi. loolu day seen am day day day tax euh, démocratie bi euh, def jéego bu rëy bon d'habitude ay débat ci élection présidentielle la doon am surtout entre euh, les deux tours mais su dee par exemple dañu innover ay élection yëpp yu mun a am législative bon élection locale yi ak élection présidentielle ñu indi di na la tur aada ñi nga xam ne ñooy xëccoo euh, pour sur le plan politique di débattre sans violence di débattre véritablement loolu maa ngi koy rafetlu te validé naa voilà merci beaucoup kon nag euh, Mamadou Wane ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. jërëjëf jërëjëf. man tam maa ngi leen di remercier. <laughs> Mamadou Wane may fàttali ni euh, sociologue nga nekk expert en analyse politique et sociale ñu ngi lay remercier bu baax a baax. Mamadou Wane maa ngi leen di remercier vraiment.